asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Gambie waa Lutte TV maa ngi leen di lamin Lamine Grand Théâtre ñoom Talla Ndiaye. BM BM. sunu télé baay boobu. yàlla na doon télé. BM Matar ñu ngi lay ziar di la gërëm di la sant di grand champion sama rek sama xarit. Balla Gaye 2 grand champion. ku ma bëgg. Ah. moom moo tax a bëgg ba ñi ma bañ. Ah. mënuñu koo bëgg. dëgg la ñi bëgg Balla Gaye den ma bëgg ñi bañ Balla Gaye dan may bañ. Mm. waaye nag sant yàlla maa ngi ziar ñëpp di gërëm ñëpp képp ku yeewoo Géejawaay maa ngi lay ziar di la gërëm di ko commencé ci kilifa ya monsieur le maire Aliou Sall nee na taal ministre de la jeunesse ak sama doomu nday Dieye Sène nu tu tudd sama avocat ba maître ba gars yi daal sonn nañ ci bis bi maa ngi gërëm ñëpp at père bay di sëy bay di bay di bay di bay di bay di di mais bay di mugunaas bay di bay di bay di ba at Fuuta Andaw Ndiaye ñoom ñëpp maa leen gërëm di leen sant. du non non dama lay expliquer. Mm-hmm. ndax man ku ma defalul dara. Mm-hmm. du question nit da lay defar nga di ko gërëm déedéet mm-hmm. ndax nit mun nga seq ak moom ay teraanga avant. comprendre nga su la joxul rek du tee nga gërëm ko man dama doxe noonu at di gërëm suma doomu nday Balla Gaye 2 Talla Mbengue. Modou Fall Modou Fall. Mbaye Diop ndax dañoo bëgg sama rakk ji ak Mbaye Diop. di ngeen sant ñooñu ñëpp après di ngeen leen sant waaw kenn du moom. di ngeen leen sant waaw maa ngi leen gërëm di sant ndax Simon dafa bëgg sama rakk ji Balla Gaye de man bëgg Balla Gaye bëggal ak Aziz Ndiaye Baye Ndiaye booy ñoom Sora ak kii nu mu tudd Masata gra waaw wulu la faral waaye garaawul am problème suñu grand la suñu grand ah, la ah at ba badu badu at benn booy yëpp maa leen di gërëm di leen sant ñoom njaag Baara Gueye King Awel Cheikh Mbacke ah. ñoom yëpp maa leen di gërëm at sama doom nday jëy seen maa leen gërëm at Modou Mbacke baax ay Couture ñoom yëpp maa gërëm ñëpp di sant ñëpp waaye. Euh, dëgg ku koy dafa jot nag wax dëgg yàlla Cheikh Saw seex Saw sama booy la sama xarit la moo ma mafia bi may dem ndeysaan ba ma nee suba laay dem gaaw dafa maa woo këram jox ma ndékki yëkkati xaalis bari jox ma maa ngi koy gërëm di ko sant di gërëm ñëpp bisimilah ba ci kanam. léegi combat bi ni mu déroulé lañ bëgg nga expliqué ko seetaan ba pare. combat gis ngeen ni mu demee bëre mag laa bëre ak moom bi dafa amoon ñoo xam ne xamuma moo daw làqu amoon xawma ñu daw am làqu ci moom daw làqu ci moom. ma ne ci combat bi wax dama ne la kombaa bi booy bi dafa amoon ci ñum daw làqu wala ñooñu ñoo ñëw daw làqu ci moo ci ñoom xañ na ñooñu dafa am mer gun ma téel wala lan gun ma téel moo tax ñu daw daw làqu ci wulli wuli wu ma wala wuli moo daw dem làqu ci ñoom. ñan la xam nga ñi may wax. xaw ma leen ñi ko doon conseillé di ko sotti ay gàllaaj di waxtaan ak moom. waa Ekrem. déedéet Papis. bi Modou Lo at Modou Lo papa Sow nag vraiment maa ngi koy gërëm di ko sant gis naa ni mu mel ndeysaan taxaw na le neutre ndeysaan booy boobu booy bu baax la te gentil papa. est-ce que neutre la. non neutre na man xam naa papa jantal booy la. tactiquement ni nga bëree ci combat tactiquement ni ma bëree noonu laa mën xam nga booy bi dañ ne ko bu ko may mu xalaat. billaahi wallaahi wa taala ma ñàkk sama ndey fu ma ko laaloon mu daanu. billaahi wallaahi taalaahi moo tax mu bëree nii mu bëree man nag bëre mag laa bëreeg moom xam naa ne day ñeen ñi day mer ndax joxewul kenn respect foofu saaga na ma foofu sax waaye après jéggul na ma garaawul yaram ma moo tàngoon ndax booy bi li ko touché li ko metti xam naa ko dóor bi ma ko dóor par arrière te loolu maa ko def exprès su ma neexoon su ma jëlul woon su ma jëlul woon bëre wala ma jël di son yàq làmb bi ma dóoree ci ginnaaw saako yi premièrement boobu laay toog bañ a jóg waaye du ma ko def gàmb gi ñu fa ñëw ñëpp ñun ñoo leen fa indi ma ak moom stade bi su feesee dell ñun ñoo leen fa indi ndax ñun ñoo jaay làmb ci mm-hmm. ñun ñoo jaay làmb ci mm-hmm. ma ñëw tuus tuus mu doy may da booy ma lu rëy comprendre nga ma toroxal saytaane ñëw bëre bëre bu rëy. yow xam nga damaa bëre bëre booy bi soo gisee ma koy dóor di arrière bëre xam nga day laaw te day mer xol lay demee maamu yooyu muy def dama ko jam rek arrière day ñëw su ñëwee day def lu mu war def ci ginnaaw saako yi fët lay def fu ma jël avertissement day jël avertissement. mais Lirou. waaw Lirou bi ngay ñëw ci combat bi. waaw yaakaaroo yow est-ce que jàppoo woon ni par avertissement rek nga mën a daanee par rapport ak ni nga bëri. ma déglu woon une minute mu déglu ma ko daan ko. looy xaar ma déglu ma dama ne la su ma woon moom une minute su ma ko jàppee fu ma ko laal day daanu man xam naa loolu. maa ko dàq bëri maa ko man doole ji te dama am doole ci combat bi. ñu gis da ngaa da ngaa simee ko rek kontaan ci làmb ji loolu lan da ngaa. simee non xam li ma gis ñu ëmb ko te di ko conseillé moo ma tax gën a kontaan loo. ñi ma gis ñu ëmb ko at ko conseillé moo ma gën a kontaan làmb ji li ci laxas woon moo bari. dama te loolu soo gisee ñu def ko kii moo tax. ñun dañ laa yokk jom. waaw. ak kii itam daf maa yokk jom ndax daf maa ñaax bi may dem daf maa ñaax. kii ñaata million la def ci combat bi. liiru nee na moom moo ko ci. moom laa doon bëreel. liiru nee na Balla Gaye Balla Gaye laa doon bëreel. kan wuli. ba wuli wuli. waaw nee na Balla Gaye moo ko téye mystiquement def na ci combat bi 3 millions. <laughs> ndeysaan man de ma xamal la benn affaire kii daal laa doon bëreel. te dafa ne moom indil ma drapeau bi. Mhm. mu ne leen daa feebaroon bala bala ma doon waaye ku daanu wut lay ku daanu wut lay ñi fi ñi fi daanu ñëpp dañoo amum lay. kan ci nur na ko de booy bi kay fii daal ku fi daanu am lay lay man daal li ma waroon def ca làmb def naa ko te suñu bëre waatoon suba suba ma daan ko. mais yow sentir nga ni jekku nañ ko wala. kan billaahi wallaahi taa kenn jekku ko ci gàllaaj barki Serigne Saliou Mbacké kenn jékku ko ci gàllankoor. nee semaine la fee tëdd di. Oh, gëm nga ko bu day wax lu ko neex. bu day wax lu ko fii daal ku daanu wutub lay moom daal nee na làmmiñam mu rëy weeg yi mu doon wax yëpp lii la jógoon pour ya jël décision bi xam ga lan la moom dafa la bëggoon dóor ma ci ginnaaw saaku yi léegi ma tëdd bañ a jóg comprendre nga mu am lay. te hmm. premier cong la def sonn naan ndox. sonn wa naan ndox di ma ma naan. ay gëlil premier service ñëw nag ma doon bëgg a yàq làmb. sonn dem na ci tasal làmb ji. non nee na waxul loolu weddi na ko. yow Lamine xam nga ci dara. mais weddi moom moo ko weddi. Lamine waxalal yàlla xale nga da ngaa nekk si yoon. non du wulli dem na ci arbitre yi ne ko tasal làmb sama loxo day métti mënatuma bëre mu ne ko koy jox victoire soo ko tasee mu ne ko mu ne ko kon souffleel ma bëre. waaw laaj naa ko mu weddi ko laaj naa ko mu weddi ko. kii Serigne Saliou Mbacke loolu la wax bi ah, loolu la wax na la ko yow. bi mu koy wax yow ak moom yow bi mu koy wax. arbitre yi ñoo dina ku soo tasee làmb ji moom la ñu jox victoire mu ne kon bàyyi leen ma bëre. waaw man xam naa ni wuli sonn na mënut a bëre waaye man ma xamal na man arrière yi ma doon su ma arrière day def su doon keneen laay bëreel borom bopp damay taxaw ñu bëre. waaye wuli li ñu ñëwee lu ñu ko koos su at bi suuf lee tàkkal ci koom bu ko may fu mu xalaatee léegi nag moo tax man ma def noonu. li nga jaaxal dëggal bi nga dëggal sa boobu sa keroog. waaw liiru ñëpp dañu ñëwoon dafa ragal. mais mu dëggal boobu man du ma ragal ku ma xamul rek ndeysaan ci àdduna. attente nan ngay ànd ak Balla Gaye nekk rakku magu Balla Gaye 2. di nekk ragal. nekk munima. nekk munima géeja way nan ngay nekkee ragal man du ma ragal. nu nekkee monument waa nan la nekkee monument waaw léegi dama leen di laaj. waaw dama koo xam. ma jaaxal ñëpp te man wuli lu ma jaaxal man wuli reefan la bokk. ak yow. waaw man man waaw ndàngal ma. reefan nga. waaw ndàngal ma reefan am naa fay mbokk. jib eh, jib Ndiaye maa ngi koy nuyu. am na rek Colobane waaw fii mooy sama base fii laa juddoo. fii laa juddoo. wuli foofu mooy base am. wuli reefan mooy base am. waaye waaye nag fi mu ne nii dafa mel ni bokkutul bool léegi ma nga ci parcelle Rock Énergie la bokk léegi de bokkutul Bawol de. non est-ce que na Rock eh, na Bawol ma nga Rock Énergie léegi wulee nga Rock Énergie. léegi la nañ ñëw ci Balla. <laughs> ma ne. noonu Modou Modou Lo mi mu wax ne daf ko doon sot. Modou Lo dafa doon sot yan preuve nga ci am. ah gis nga ko yow yaa ma ko njëkk wax Modou loo bi na man yaa ma ko njëkk a wax dafa ne Modou Lo mi ngi day sot daf lay sot dafa bëgg nga daan daa bëgg wuli daan la ma nga nee jox na Papis benn bidon pour mu jox ko wuli yaa ma wax loolu. wax nga ma ko yow. Modou Lo jox yaa ma ko wax yaa ne ma Modou Lo jox na Papis bidon bi ndax day bañ ga gis ko. mu jox na Papis bidon pour pour mu wulli sottee ko bidon bi su ko neexee am nañ P3. mooy sosal de. Oh, sosalu ma la li am rek laa wax mooy ku koo wax rek da nga koy eh, sosal. sosalu ma la de yow ko man du ma sos man du ma sos de. Demba. kan Demba Pata. Demba Pata. ah Demba xare waaye seet naa ko mu sol mbasin bi moo solal mbasin bi. lan ma jaaxal non kii moo tax. kii moo tax. wuli nag neen li ko met mooy da nga naan Balla Gaye mooy roi des arènes te Modou Lo mooy roi. waaw léegi nag. yow ah, loo waaw defal na. wuli wuli wuli. wuli moo wax loolu ne Modou loo mooy roi waaw Modou Lo mooy roi kenn werante wu ko waaye du roi Balla Gaye dëgg. Ah, mooy roi mbër yëpp ak Cheikh Ahmadou Bamba Guédiawaye amu fi roi. waaw fàtte woon naa ko moom moo doon wax naan victoire noo ko amee baax na na arbitre yëkkati sa loxo. kan Modou Lo moo fi waxoon bi mu bëreeg Lac pare. bi ne ko daanoo ko mu ne victoire noo ko amee baax na yëkkat sa loxo waaye sama victoire a ngi nii sama drapeau baa ngi nii victoire noo ko amee baax na ak drapeau xar jëru sa waaye xoos waaye BMG sama oto bi nan ma ko jox mooy oto ba yaa nga fa woon ne woon oto lan teg ak terrain ku daanu ku daa waaw ku daanu am terrain ku daan am oto maye leen nan teg ñaar ñëpp Gambie maye leen ku daan nan bu teg ñaar yëpp ku daan yóbbu ñaar yëpp waaw sa kanam léegi wuli ne d'accord may naa ko terrain bi ci xol bu sedd guy. léegi oto bi laa soxla nan ma ko jox sama oto. mais demaatoo fa nag. non may dem Gambie de non demaat wu keroog làmb ja nee ma après na nga ñëw man ma moo taxoon ma ñëw. te cool dafa wuli dafa waaxu jiitu ma fii di rattate rek loolu laa doon lijjanti si moo taxoon ma ñëw ndax Gambie yow nee nga ma waxal may la non du ma wax. boobu sax da ngaa ñàngoon moom. lan laa ñànge. kanam gi daa néew. yow yaa ñi may yàlla yow yow yaa ñi may yàlla yow di waxal la dëgg te yàlla tax waaye waaye rek bàyyi li nga mel. xam nga chaque jour may la saytaane nga léegi promoteur saytaane am na mbëru saytaane am na euh, journaliste saytaane am xam nga bu njëkk ba journaliste saytaane dong ñu amoon ak promoteur saytaane léegi mbëru saytaane sax am na léegi. ñooñu ñooy mbëru saytaane am nañ seen bopp. yaa ngi tooñ de. tooñu ma de da mbëru saytaane daal am na. Hmm. foofu laa wax mbëru saytaane yi am na. léegi nañ ñëw ci Balla la Balla. waaw gis nga sa xaw ma sa poulain la xaw ma sa grand la kii sa mm. poulain la. sama patron la. sa patron la ok patron bi daa demoon bëri ji. Mhm. mais dañu seetlu patron saa bu bëree rek. Mhm. combat ba du yegg wala nii nu muy day day day tax su. waaw parce que xam nga boo amee xel mën a bëre xam ni ngay bëre soit même buñ la jékkoo sax duñ la daan mooy li muy def. nit dina ko jekk mais du ko mën a daan soit ko ci ginnaaw saako yi la koy dóoree ndax da koy def lu ko mag bu yàgg bëri la xam làmb kon li nga expliqué rek combat bi passé nag wax dëgg yàlla àgg na ndax liiru arbitre sifflé na ñu léewtoo benn ñaar mu dóor ko arrêt de gauche sa waay maam mu ñëw di dóor ci air bi mu génn saako yi mu dóor ko te bu doon senegal la yaakaar naa làmb ji dafay jeex ba pare jox la. arrêté wax na ko démb loolu. kon donc bu yàlla defee nag kon mu daan ko jël bi nga xamante dans la manière ah, kon donc vraiment félicitation Lirou. yow tactiquement loolu nga conseillé woon Lirou. non euh, Lirou da ko doon dóor mu daan. parce que wulli moo yàq. kii su ñëwoon làmb ja wulli dama koy dóor mu ji dóor mu daan la woon. su ñëwoon làmb dama koy dóor mu daanu kii. làmb ji dóor mu daan la woon non non làmb mu daan la mais sa xam na loolu ndeysaan mu xoolal jàmm na fa loxo. Hmm. bu rëq man gis naa loxo bu rëq. te loxo bu ñëwul fii jégalu Lirou du wér ah. du rees. loxo jàmm de. yéen kon kon 3 millions yi wax. dëgg la dama ne la làmb ji dóor kon nag dafa am sens. bopp bi toj na jëbi toj na. dem na Ardo waaw na Ardo. donc trois fois la dem Ardo. loolu man dem ma Ardo man. non nee na daf kaa xosi nee na daf kaa xosi. kan moo xosi man damaa am wee. man am wee bay xosi waate. man damaa am wee bay xosi waate. booy booy fan la am wee bay xosi waate. non loolu non liir bi deful dara ki day def day deful dara. waaw lu tax ma lu tax ma da da ne ko da nga faral boy matar nga faral fas amu matar yow sama rakk nga liir la mu la faral bal bal bal bal dama ko dama ko tuy laa ko xam nga booy bi bëri mag laa bëri moom def naa ko fi esat boobu moo ko doon gaaj boobu ko la jàngal boobu eh, man door naa ñett ñu daanu kan ak kan nga dóor mu daan. sulumle sulumle Vandam Boy Séeréer. waaw yokkati na ko de. waaw waaw waaw. Hmm. sulumle Vandam ak Boy Séeréer waaw. ah. laajal bàyyi ma ñoon kuy sulumle bàyyi ma ñoon xam sulumle bàyyi ma ñoon bëreeg sul. fii euh, Papa Kan. waaw waaw. dama ko dóor mu daan Vandam ma Baboy la nekkoon ci écrit Baboy. mu daan maa ko génne làmb ji ndax Boy Séeréer eh, fii la nekkoon écrit bi nu mu teg est ce que nekkul écrit woon Séeréer écrit Séeréer. yaakaar naa écrit séeréer surum la bi moom ak ak Van Damme bi Cheikh Bouwala confirmé nee na fekk na ñaari yooyu boobu rapporté go man ku ma yeb tey nga ma yeb bi ma defee accident ba noppi waaye sant yàlla baax a baax dama am benn maire bu nekk Gambie muy ajaa Gass bala fanu daloon moo ko jox diñ defal ay tranga ak euh, rakam ki doon togg añi nu mu tudd maire bi ka nekk Gambie sama yaay ja ak sa fan si club président fan si club ba nekk Gambie ndu ah faafa délé délégué kii indi nit ñëpp ñu ñëw supporté ma ndax lépp sama rakk ji la ma am Gàmbi yëpp ndax moom la képp ku nekk Gàmbi di bëggee liiru dëkk kër sama yaay ji Adja Gaas rakkam yi ñoom ñëpp maa leen gërëm di sant at sama safoor ba nu mu tudd safoor ba. mu doon daw course yi ah Thiè Thiè. di nga sant ñëpp liiru liiru da nga sant ñëpp xaaral dafa am loo wax keroog keroog dafa am loo ma wax. bi nga ñëwee hôtel bi da nga ni ma da nga ni ma. Modou Lo daf laa sot. doomu maa sot waaw. combat taxaw. waaw nga pël bi. waaw ba. waaw ah, man ah, su combat ba sama combat la. man combat. moog Ama. sa combat la yow. Ama laay faral Ama laay ñaanal mu am ndam. dama doon sot. pour bëgg ma wuli daan ma. yàlla ko Ama daan. maa ko wax nëbbu tuuma làqu ma ci. def pexeem ba bu lii toroxal ma wuli yàlla mooy dogal. yàlla pare na démb. bi nga amee ndam ba pare daa génnee saag bi. ñi ko seetaan si télé yi ñoo ma ko wax neen ma dañ koo teg. dégg ko sànq mu ni ma ko. wax nga ma ko yow yaa ma ko njëkk a wax Gambie ne ma ay Modou Lo moo ta am tay lu ko métti bi la yëkkati sa loxo dafa daw rek fi tax loxo dafa sànni mu génn wane ginnaaw Modou Lo waaye man Modou Lo man defu ma ko dara lan la ma bañee. man géejawaay laa foo rek mais est ay foo rek. foo du foo yooyu Modou Lo def wuu Modou Lo foo ñaaral gi mu def ranking yi la. daa am lu ma jàppal Modou Lo dafa lu ma jàppal te man vraiment man ku nekk fa dëkk nga am man géejawaay laa am géejawaay laay tiitaroo kii sama rakk la c'est mon frère. ku ma xool ci moom mere ma. ah oui. ku la ci moom. Ah, ku ma xool ci Balla de mere ma c'est mon petit frère. waaye mais ba léegi kii ci moom la des. kii gars yi moom la ñuy wër. kii moo yor caftak lamb yàlla ko yàlla lafal cat te musal ko ci saytaane at lammeñ kii moo yor cafta lamb. kan la kan la léegi xam nga lan moo xew grand contre petit. mais léegi kii léegi léegi léegi waa ji. kan borom ci nu mbër ma ma doon laaj lan la wax. Bombardier voilà Bombardier. yaa sama dara wax xam nga Bombardier damaa daan toog ci télé bi ne nan ma jox Bombardier moom xam na ni. dafa am lu ma ko jàppal Bombardier li ma ko jàppal mooy ba muy daan sama rakk ji dafa feebaroon tama dama doon nekk moom guddeeg bëccëg yërëm ko toog naa ba ci yàgg jooy sama yaram ndaw comprendre nga ndax bugguma woon mu bëre te jomam at fullaam at faydaam moo tax mu dem bëre ji te xam naa ne moom wérul mi ngi dem waaye wérul Balla Gaye entraîné wul ci kombaa boobu feebar comprend nga jomam at faydaam mu tax mu dem léegi nag jee daan ko def ko ndam te fu mu jëlee roi bu moo ma neexul Bombardier def ko ndam moo tax ma ne jox leen ma Bombardier. ndam la kat. waaw léegi ndam la noo ko amee baax na at bi yëg sa loxo <laughs> léegi ndam la ndax xam na moom ba muy daan Bombardier ba muy daan Balla Gaye Balla Gaye wérul. Balla Gaye waa déglu muy daan waa déglu ma non non li man maa ko muy daan Balla bi mu daan Balla Gaye Balla Gaye ndam ko amee baax na am na ndam ci kaw Balla Gaye jëloon na roi ba jëlaat na roi bi moom léegi nag <coughs> moo tax ma ne nan ma jox Bombardier ndax jël boobu mu daanoon Balla Gaye daf ma metti. ba tey nee na da ngaa bëgg wuli doon sa jabar ji rek moo tax nga koy laaj da lay rëkk ne ku muy rëkk du rëkk kenn. du rëkk kenn grand contre pot na dem jëlee su ma jëlul na dem jël rëg rëg. non nee na sa rëg rëg ku baax la. nee na sa rëg ko làmb ja. ñu loolu ndax ndax ñee ñëwoon doon jàppale wuli rëg rëg woo na ma ci ruq di ma conseillé gërëm naa ko sant naa ko. booy rëg rëg yaa ngi koy dugal de. ma dugaluma ko booy bu baax la ndax tey dafa gisoon ma wéet. mais Bombardier nee na daa gisoon ma wéet waaye Alioune Seye 2 sama rakk jooju yàlla na ko yàlla defal jàmm Alioune Seye yàlla na ko yàlla defal jàmm combat mu jëm yàlla ko yàlla. may nañ muy ma song booy bi. lan moo tax songoo ko kon. non man maa bàyyi ndax xam naa xam na foofu dara nekkatu fa waaye c'est booy bi xol bi muy bëree moo tax ma def ko noonu pour jaxase kaak public bi dama ko doon jaxase public bi ndax xam na ni li muy def teg ko ci yoon. kon yow sa stratégie nga indi. sama stratégie laa indi. sa lan. stratégie sama stratégie laa indi. waaw nañ des ci waxu Bombardier bi. waaw na Balla Gaye su amee ko métti bëriwul ak moom tey bëriwul ak moom ëllëg. na dem jëli rek rek. waa léegi waa léegi waa léegi Balla muy bëree. xale yi. kan xale bu pourbe. kan ma fi benn xale fi ne. muy kan. ah maa am na combat booy ñaa fi ne. non nan ko fay xaalis mu jël ko. waa léegi. Balla Gaye day liggéey. waa léegi kon cin fonde bi des na. waa ji ne bu yàgg. Ah. yow bo euh, Balla Gaye su dee bëreeg booy ñaa da koy may sens Balla Gaye su ko neexoon ne du bëreeg booy ñaa. loolu kenn wérén voilà tey fay suñ ko fayee la ko jar mu bëreeg moom nag. Hmm. day liggéey. kon d' accord nga ci. kan d' accord nga ci Modou Lo Ama Baldé dafa prouvé moo tax Modou loo jël ko Ama dafa prouvé moo tax Modou Lo jël ko comprendre nga. booy ñaa prouvé wul. booy ñaa fi ne ci defet la jógee waaye Balla da koy jàppal may sens xam ne prouvé na daan naa ay moroomam.